séddalee or wi te na xel ci zone yi nga xam ne moo am or ci réew mi sursu aane ma démb day ci CM bu Wakaam 2 ab xale bu doon def EPS moo faatu ca kuur wa malaise la am ñetti yoon ba ca mujj moo ko faat moo tax nag iyaa bu Dakar ma ngay sàkku ci ndongo yi laataa ñuy def EPS nañu defi visite médicale ba xam ni mën nañ koom déet ba nuppi en attendant réew mi quotidien di ma xamal ne suñu ceebu jën national daal dinay dugg ca UNESCO doon nag patrimoine culturel immatériel de l'humanité ngeen xamee ko noonu te bu leen fàtte ni coronavirus mi ngi ci 장